ONAS ak kuréel gi ëmb acteurs communautaires yi di wuyoo mbooloo mooy doole ànd ci ak ay IBP ñooy amal ñetteelu édition bés bi ñu jagleel waxtaan ak wecceem xalaat ci mbënn mi Muy Nawet, mardi 4 juin 2024, Bilobu 15 Biotech Kormassar, terrain Yekeni, était Wayou, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement 2021 Bataïnak, acteur communautaire acteurs communautaires yi bàyyeekoo ci Kouli, goxaan amal Wajal nawet ngir Wartan, a Kat Askanwi, ak tàggat askan wi assainissement yi itam nous nguur gi ci mardi 4 juin 2024 bu 15h jotee Massar terrain Yekini, ngir gëna 77 241 73 76 ou le 77 521 46 70